mënta wax mais benn wax moom dama ko mën a mais maa ngi sant yàlla di julli Seydina Mohamed di ñaanal waa Palestine yàlla na leen yàlla dimbali xettali leen na jullitu àdduna bi yëpp jóg ñaawlu lii jéem a xeex lii def suñu këmtalaay kattan suñu doole li ñu mën fi suñu doole fu mu toll li si def suñu borom moo tali ko di ñaawlu nag suñu gouvernement nu mu ci taxaw waroon na gën a taxaw taxaw taxawaay bi mu ci taxaw waroon na gën a rafet gën a feeñ gën a fës ñi ngi ñaawlu loolu ñi jooy si si di ñes xam naa ne bu fi newoon fi newoon yal na ko yàlla leer foofu mu newoon dina gën a baax li may wax li may gis nii tey moom c'est vraiment c'est trop c'est trop c'est trop joli c'est palestinienne. Je suis née ici, je suis palestinienne d'origine. fii laa juddoo fii laa sëyee fii laa yaroo Mais un jour ou l'autre, Inch'Allah, on va tous partir là-bas. Et je sais que c'est pour bientôt, Inch'Allah. En tout cas, je remercie tout le peuple sénégalais pour être ici aujourd'hui pour la la Israël ay terroriste lañu waaye ñun amuñu ay ñu baax la a jaam yàlla xam lan la yàlla santaane livre Palestine ñun islam lañ ay jullit lañ dañu war a gëm suñu bopp ay naafiqiit lañu nekkal fii ay njiit ñoo xamante ne ñu yàlla xamuñu yàlla lu mu santaane yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na boo gisee sa jullit di ko tooxal da ngaa war a taxaw di ko riposte di ko dimbale ñun du ñuy pour wane sama sama métti sama naqar bi ma am euh, ci Palestine li nga xamante ni loolu la suñu ko palestinien di dund tey dootul affaire jullit dootul affaire diine mais affaire doomu aadama affaire nite rek war na tax képp kuy doomu aadama war nga dimbali waa Palestine parce amuñu lu dul ay xeer la am ay lu tuuti la am waa Israël di jël ay roquette di leen assommé di leen dóor yaay ak doom ñu leen ñu tegu ko fenn ci pataaru ñëpp nekk fi waa waa ONU kenn waxul kenn waxul comité international bi kenn waxul may interpellé ana waa droit de l'homme yi ñi nga xamante ñoom ñoo yëngu ci droit de ana ñu kenn déggu leen ñu seen kàddu par ak Palestine yi leen metti looloo ñu gën a tax ñu ñëw fi te wallaahi laasim ñu ngi koy seedaloo suñu borom tey suñu mënoon a dem Palestine wallaahi dinañ dem aleykum wa